keroog mi ngi ma naan sëñ Cheikh de dox may wax ne ma li ngeen seq yow sax moom sax xamu ko te loolu bariwul ñu xam loolu ndax bi ma daan dem ci ay waxtaanam yàgg na boobu sa xale la da daan wax ne même su ma ñëwul nañ ma bàyyil seize bi may topp mooy Cheikh ma Tidiane Pape Malick nag di nit ku yiw doomu nit ku yiw moom bari na ndax nit képp koo xam ne nitu yàllaa la ci nga jóge kooku nit ku yiw doomu nit ku yiw nga wante yiwee nag moo yombul kooku nit a koy lijjantil boppam yiwee nag du sol mbubb mu rafet parce que mbubb emballage rek la ci dara mën ngaa jël ay këyit wala ay sagar wala suuf emballé ko emballage bu rafet boo xam ne boo ko yëkkatee di ko tàllal ne ku bëgg dañ koy njëkkante waaye boo demee ba ci biir boo ko teqal ñoom muy ay sagar danga koy bëgg a sànni kon emballage maanaam li nit ki di feeñ ci kaw kooku man def na bari ñu koy tuddee ak yiw mais yiw ci biir nit la jikko la kon bu la yàlla boolee nga bokk ci fu yiw ba noppi am def sa yiw boole ca ñu xool sa biir it yiw googee di dëgg muy ngay doomi nit ki yow di yiw te lu jafe la nag ndax jikko la mu bokkoon ci ñu ko def mu def ko lool waaye nag ku xamit yar ba ak nañ leen def nga xam ne loolu foofu la fekk keroog bi mu sëñ Mutulaa demee tu sëñ Cheikh Amadou Tidiane yónni ko ci man dafa ñëw ma fekk ma ci mbaat mi nit ñi bare lool ma ne ko déet jàll sëñ mun ne ma mukk fii nit ñi toog laay toog sëñ Cheikh indi lu lu bare ne waajuram la foofu la toog ma wax wax mu ne ci biti rek buñ noppee mu daal di ne day dem diw nit ku woyof nit ku am solo waaye nag loolu lépp du ñu bett bu dee ki nga xam ne mooy Cheikh Ahmadou Tidiane Sy wax naa leen ko ne leen loolu la doon def ca keroog it loolu la ma fa wax foofu nga xam ne moom moo ma ko waxal boppam nag nga xam ne kon moo ko wax ne ko la seq ak moom ak la ñu seq te loolu kon yëf yi am na solo loon bu dee ci wàll yi ci des tàmbale ko ci sëñ sóor sëñ mën Mansour su ma fa masaan dem. ndax mu naan kaay ci sama laboratoire xam nga moom ko am xorom lu woon di san ma ne ko lan la foofu mu ne ma sama néegu bopp bu duggee ba ci biir mu ne ma sama néegu bopp nga ñëw fii mooy sama laboratoire yow rek laa fa may nga di fi dugg kon kooku tamit kon xam na li mbir mi bu dee sëñ Abdou Aziz si ñoor bu ñu génn ci biti réew tase fa ci conférence yi ñu daan def eh, dana ànd ak njabootam ñoom Moustapha Cissé ñoom Moustapha Niang wala Moustapha Sy beneen bu bu bu Louga waaye fa mu waxtu bu ne la muy wax ak man di ma ko ber xaw ma de foogu mu ne dana ko wax ak ñooñu su ma ko masaan gis toujours it dama ko naan sëñ bi gannaaw nun nun danoo nekk ci ñii nan làkk suñuy pël wane rek ne démb loolu lépp danga koy def ngir wane ne la woon foofa fa jóg ba ci sëñ Maodo ba ci sëñ Mbay sii si kër si mii dafa maa waxoon ci fan yële rek ñu gàmmoo ba noppi ne ma Touba de xam naa fa ñoo bokk voilà xam naa fa waaye nag danaa la ganesu ganesu goo xam ne yow rek yaa may tax jóg far yàlla def événement yi am saa bu ma tasee ak njabootam fu ñu mën a tase ci àdduna bi danañ ma wax loo xam ne wóor na ma ni moo leen ko wax ndax maa moom rek ko seqoon mu di ma wax di ma encourage ñooñu nag li may wax toujours ne. Euh, nit ku baax ak nit koo xam ne euh, euh, am na nit ñoo xam ne bu ñu la dee wax wax buy rafet wax naa ko ba tey wax bu niru lu neex bu ko bu ko sugg suggee da ngaa war a jàpp ne ñooñu dañu la bëgg soññ dañu lay encourager pour nga gën a góorgóorlu comme noonu ma wax ci sëñ Abdou Assis sëñ Abdou Assis bu ñu ma saan tase moo ci biti bi am na yoon boo xam ne dañu tasee xaw ma def naa Tripoli la ci jamono yi guerre bi ci conférence yooyu boobu Moustapha Cissé nga fa boobu Moustapha Ñanga nga fa ak Moustapha Sy Oustad lañ koy wax keroog Moustapha Sy moom day def toujours ci discours am sax da koy woy mu sëñ Abdou ñëwul woon booba daf ko délégué woon ñooñu la délégué woon bi mu leen délégué Moustapha Sy daal di jël kàddu ci turam daal di def ay bayit pour wooyee ko discours am def naa def doon wax fa fii Moustapha tamthiluhu sama Moustapha kata Moustapha fa kullu min naa yu mathilu maanaam ñetti Moustapha yooyu Cissé Moustapha Cissé ak Moustapha Ñang yàlla yàlla yërëm ak moom Moustapha si euh, wax ba noppi ma ne ko nag man du ma woykat du woy moom du ko def daa bind ma du woy ma ne ko léegi de baax comme yow yéen waznu yi da ngeen koy segg mais damaa ci dugal baat boo xam ne même boo ko dee seggaat il faut nga def ko euh, ma ne ko da ngay wax fay fii Moustapha tamsilu ko sama Moustapha kata Moustapha Mamour kullun yu matsilu dugal ci sama tur mu ne ma wasun bi baax na sox loolu li ma ci jublu woon daf ne ñoom ñetti Moustapha ñoo ko représenté ma ne ko nag xaw ma de duma ci sañ dindi waaye fokk nga dugal ci sama tur parce que bu ngeen ko dee représenté yéen def naa kenn gënu ma koo jege ci ko ko fi war a ba ma ko wax sëñ Abdou dafa dafa dafa dafa dafa xol bi dafa jeex te boobu nekku fa kon yëf yi mosul am problème. ngeen a